صفقت لي رب البرية البدن أزال أغاد من خلوني بددا صفقت لي رب البرية البدن أزال أغاد من خلوني بددا صفقت لي رب البرية البدن salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi am mbégte di leen dalal ci turu euh, conseil municipal bu Touba ak le maire Abdoul Ahad Ka ak bureau municipal bi ak mboolem conseil yi di am mbégte ci liggéey bu am solo bii nga xam ne waa service d'hygiène indi nañ ko fi tey muy liggéey bu rëy boo xam ne ku xool matériel bi ni mu demee ak ni mu bindoo ren da ngay xam ne jogaat nañ weneen jógiin bu bees te yàlla dafa ñu taw feex ju toll ne matériel bi yëpp Touba lañ koy daloo région bi ñu ngi koy dalal jàmm waaye moom it di ko ñaan mu dalalal ñu jàmm Serigne Moustapha Kane ñoom ñi ak bokk yi nga xam ne ñoo bàyyi koo Dakar ci turu mairie Touba ñu di leen sant nag bu baax di leen gërëm bu baax di leen xamal ne maire bi mu ngi taxaw ci seen wet ci côté bépp moom it nam ci daan jàppee incha allahu taala fas ni ko yéenee jàppale leen ko euh, lu mu ci daan def rek daf koy yokk waaye du ko wàññi incha allah mi ngi sant nag bu baax ci taxawaay yu am solo wax nañ sàkk woon nañ ñu wutal leen fi terrain pour ñu mën cee def brigade dizaine terrain boobu jox nañu leen ko léegi président de la république itam wax na ne dana génne génne na lu toll ci 700 euh, millions pour tabax brigade dizaine bi kon nag loolu itam ñu ngi ci soññi président te di ko séentu ndax liggéey la bu am solo ci dëkk bi boo xam ne dëkk bi soxla na ko lool te brigade dizaine bi fi nekk itam ñu ngi taxaw taxawaay yu am ama am am solo yoo xam ne ku leen jàppale liggéey boobu dana gën a jëm kanam ci turu maire ak turu conseil municipal daal loolu lañ amoon kàddu yu ñu ciy wax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa salaam. ok Serigne Mbacke Abdourahmane la bokk ci commission sociale ak hygiène ak euh, santé euh, teew fi nag teewal fi sëñ Ousmane mi nga xam ne moo jiitee mooy coordonnateur généralu comité bi moom it ci ndigalu Serigne Bass Serigne Bass di wax ci ndigalu Cheikh Ahmadou Mountakha ci turu kilifa yooyu lañ leen di nuyoo di leen dalal jàmm fii ci Touba di rafetlu lool nag lii ñu fi gis mooy ay jumtuwaay yu yees yu bari yoo xam ne wax nañ ne fii lañ koy dalaw kon ñoom yaakaar lool ci ne bis bu ñuy sant leen Sëriñ tubaa yàlla ci xéewal yi mu ko defal bu ci taxawaay yu mel ni amee dana dal xel dana dool yaakaar kon ci turu sëriñ bi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. di ko topp ci loxol Serigne Fallou Sarr mi jiite région bi ak Serigne Kay itam yi jiite nekk fii ci Touba ci brigade bi ci Touba di ñaan yàlla dafa leen jàmm may leen dam ci liggéey bi am na yaakaar lool ci jumtuwaay yi gis ñu wan ko xarala gi mu jamono ayib doo fi te it nag liggéey gënu ko ndax dimbale jaamu yàlla yi ba seen wér-gu-yaram gën a santu bañ mën a gën a jaamu yàlla mën a taxaw seen taxaw njaboot bi loolu ci liggéey ëpp solo ci la bokk kon yàlla na ci yàlla jàppale jërë ngeen jëf waaw tey damaa ñëw nii représenté euh, le collège Maodo Malick mi nga xam ne deneen di pompé dal yi nga xam ne ak kër yi nga xam ne ak sax euh, barab yu mel ne jumaa nga xam ne ñoo fi nekk ak daara yi nga xam ne nit ñi dañ fay dal ñu pompé ko désinfecté ko désinsectiser ko surtout que ren dañ cee boole waa nag contexte Covid ndax léegi looy liggéey lu ne actuellement nii moom mënoo cee ñàkk boole contexte Covid kon loolu ak ak it euh, di di di ànd ak daayira yi. ak ñi nga xam dana yor ay waañ yu mag di fa manipuler ay ay ay xeet ñam yu am solo mu am ay règles d'hygiène yu am solo yoo xam ne mi ngi tàmbale ci laabal di raxas seen loxo di nemmiku ñam yi ni jënd ak di di di di fexe daal ba barab yi ni euh, defaree ñam yooyu mu bañ a am ay feebar yoo xam ne mën na cee jaar di dugg ci euh, nit ñi kon nga xam ne service d'hygiène liggéeyam yaatu googu moo tey dañ fiy desaat sax bu fekkee maagal gi jàll na ngir nga xam na ne fu nit ñu bari dajee Euh, mbalit yi day bëri déchets yi xeer yi day bëri te boobu tam am na ay opération yoo xam ne fii kilifa yi dañ koy def woote waat ngir ñu balewaat dëkk bi buub ko comme ni ñu koy defee fi ne maire yi ànd ci ay UCG ànd ci autorités yëpp ànd ci service d'hygiène aussi daf fiy nekk pour mën a désinfecter barab yooyu ba kenn du ci jëlee benn ngaañ kon mu mel ne liggéey bu yaatu boobu ak yàggaay bi muy kii moo tax ñuy teel a ñëw nii indi nag dispositif bi nga xam ne ren day un dispositif particulier ndax président de la république véritablement moo moo moo bëgg service d'hygiène dellu ci doole ji nga xam ne amoon na ko ba tax na euh, kenn yéen ñëpp gis ngeen dispositif ren bi yaakaar naa ne wax dëgg yàlla lu daan def tey mën nañ ko def ñaar wala ñu mën ko def ñetti yoon dangeen ngeen may may rek ma sant yàlla sunu borom subhanahu wa taala julli ci yonent yàlla man alayhi salaatu salaam sant Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba euh, sant Serigne Touba mii fi nekk muy sëñ Cheikh euh, sëñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg lool te ñëw nañ Touba ngir liggéey bi Euh, ni ko Moustapha waxee rek nu teewal service national de l'hygiène di jottali nuyoo euh, le médecin colonel euh, Maodo Malick Diop ci lo nuyoom boobu moom it nu indaale ba su ministère de la santé mais aussi teew nañu fi ngir liggéey bi di sargal di gërëm comité d'organisation bi gannaaw bu nu noppee ci sëriñ bi comité d'organisation bi yombal nu liggéey bi jàppale na ci li mu war a jàppale féete nu fi nu war a féete yëpp mais aussi euh, euh, cant gi ma ciy dëxëñ léegi ci tàmbali bi ci ndorteel yi euh, région médicale Diourbel avec à sa tête docteur Mamadou Dieng mi nga xam ni docteur ndey Maguette Diop mi nga xam ni moo yor district sanitaire Touba moo ko fi teewal nii lépp loo xam si taxawaay la bu bu ñu war a def def taxaw nañ ko ba mat sëkk tàmbali na nag ñun comme ni ngeen xamee noo fi jëkk noo fi mujj noo ngi tàmbali barki démb tey lanu feeñ waaye noo fi ba gi euh, ba le 10 octobre euh, loolu moo wane ni rek ñëw nañu indi suñu jumtuwaay ci wàllu jumtuwaayu oto yi indi nañu ñaari euh, camions yu mag yoo xam ni moom mooy transporteur yi mooy yóbbu na ni indi nañu fukki oto ak juróom-ñett yoo xam ne ay 4x4 pick-up lañu yu bokkul ak yeneen oto yi nga xam si ay particulier la te agent yi moom ko te bu liggéey bi laajee ñu dugal ko ci. indi nañu aussi appareil yi ñuy pompe doy na sëkk indi nañu yu mag yi nga xam ne bu guddee moom la ñuy wëree dëkk bi moo ñoo nekk na la kaw oto ya. Euh, indi nañu nag ci biir dispositif bi ay pàcc pàcc ay kuréel yoo xam ne kuréel bu ne dañu lay dénk liñ la war a dénk am na kuréel goo xam ne day saytu ndox mi euh, euh, cetug ndox mi ak càll nga ndox mi ñuy naan am na kuréel goo xam ne dañ koy dénk wàllu mu topp marché bi xool li ñuy jaay lu xorti marchandise yi ndax xam ngeen ni am na ñuy màggal si am na ñuy raas si déem ñuy gàmm ak ñuy raas dem bokkuñu ñu nga xam ne dañuy profité ci màggal gi di indi ay marchandise yu bon bëgg ko wanteer dama naan rek population yi fu ngeen mus la xam boutique wala kër guñ luyee bàyyi fa ay marchandise ngeen gis ay pousse-pousse di fa jaar di génne marchandise di yóbbu wala ay sareet na ngeen leen dénoncé na ngeen ko wax comité bi komite bi wax nu ko ndax ñooñee duñu marchandise yu baax taw day am ci dëkk bi ñu luubal ñi dañuy taxaw ci benn angle gaari seen camion tëgg seen ndënd ni dañuy dañuy promotion promotion boobu nañ ko xoolaat surtout lu wàll lu jëm ci wàllu lekk gi ak wàllu lu jëm ci waañ bi loolu am na am na am na équipe bu ca jëm am na équipe boo xam ni mooy topp camion yi nga xam ne ñooy vidange ñooy def vidange ndax aussi dañ leen di topp ba nga xam ne li nga xam ne moo génne ci fos yi du tasaaroo biir Touba du tasaaroo ci fu jege Touba sàkkal nañ leen barab yi ñu koy yóbbu ci biir di société bi am na ñeenti moto yoo xam ay agent lañ koy jox ndax moto gën a neex a doxe moo gën a neex a toppee camion bu ko defee ñoom ñoo leen di topp ku ci xam ni si boo duy ba mu fees muy siit wala muy rogalaat ñu taxaw loola nga defar ko euh, camion yi nga xam ne ñoo ñëw ci commission bi ba commission yi daañ ci taxaw danañ ci def niñ ko a def laay woo pour ci loolu ñoom mooy privé yi nga xam dañoo ñëw di liggéey si wut xaalis yor camions yi vidange nañu fexe ba seen camions yi bu mu senn bu mu seet nañ ko defar ba mu baax loolu lu am solo la ndax génne ko ca foos ba mu tasaaroo ci dëkk bi parce que amul amul njariñ euh, euh, am xam naa daal daanu dañu suuf mënu maa wax li ma bëgg wax lépp ñiy sant ga gërëm rek di ko beesalaat ci comité d'organisation bi euh, di teg sunu sunu sunu cant ak sunu di ñaan sunu dagaanu ñaan ci seen loxo Euh, ñu jàttali nu ko sëriñ bi xam na ni ñaan gi sax du fi jóg euh, di yóbbante waat nun ñëpp ko bokk waaye ndey màggat docteur ndey màggat kent ak ngërëm gu ñeel médecin chef de région taxawaay bi rafet na euh, di wax aussi Cheikh Moustapha brigade régionale hygiène Diourbel gis na taxawaay bi SNH taxawoo région bi yéen a gaawar a ngeen remonté ko loolu daal mooy mooy mooy li ma bëggoon a daaneele waaye waaw mu xaddimaatul xidma ñoom daanaka dama leen a tuddee rek ñoom am nañu ay agent d'hygiène patenté ñoom seen liggéey bi ñuy def ci biir du tee nag daanu ñëw bu guddee jàppale leen ci lii li li wër ndomba jumaa ji waaye liggéey bi rafet na damay daanee la rek maire yi bi nga xam ne moom ni mu war a taxawee ni mu daan taxawe taxawee na ko ba mat sëkk ndax produit bi li ñu soxla woon euh, daanaka bu doon ñetti xaaj euh, maire yi jox nañu benn bi muy ñaari loolu moo jëm ci lii xeex yooyu te ku ne nit ñi duñu xam ni euh, doomu jàngoro ba lan doon rey ndax ferñeent yi nga xam ni mooy rey mooy rey doomu jàngoro bi bokkul ak bii rey yoo bi waaw bu nu bëgg ñaar yëpp la ñu bëgg nag lëkkale boole leen ñoom ñaar incha allahu rabbi ñu ñaar rek ñu wax euh, borom kër yëpp nañu yaatal bu di d'hygiène ñëwee nañu ubbi buñ leen nee fu ñu leen ubbi bu kenn euh, pompe bi kër wala tëj bee nekk ndax lu ju jeexul jógu fa kër gi bu ñu pompee lii pompe nu lee mooy jàngoro yu jógu fa mbaa yooyu jógu fa ñu ngi leen sant leen gërëm yéen waa presse nag di leen baral di leen beral cant gu rëy. sant yàlla euh, julli si Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba di ziar sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool. te gën a wér. donc euh, di sant ci tawféex gi ñu am tey ànd ko ak waa service d'hygiène donc di gërëm waa comité d'organisation bi nga xam ne ñoom ñoo organisé màggal gi ñun ñu ñëw di leen si jàppale ànd ak ñoom waaye it ñu dalal ñu ci. Euh, yi nga xam ne moo ñuy dimbali euh, ñun suñu wàllu liggéey ñu def ko ndax santé xam nga euh, suñu objectif ci màggal gi mooy fexe ba képp ku fi dëkk ak képp ku ñëw màggal gu yaram yi war muy nag loo xam ne defi bu rëy la yombul waaye suñu service yëpp ak service d'hygiène euh, taxaw ci te foog naa ne sëñ fàllu Sarr wax na li mu li ci li ci aju yëpp donc du jar ñu siy dellu siwaat di santaat bu baax daal di wax suñu disponibilité ak suñu engagement ànd ko ak comité d'organisation bi ci wàllu wépp pour li nga xam ne mooy euh, feebar ñu lépp lu ko mën a fekk ak lu ko mën a euh, fagal ci wàllu lekk beeg naan beeg euh, dëkkuwaay yeeg yëpp ànd ko service d'hygiène Covid bi nga xam ne nag ren mooy li bees moo xam ne moo lëmbee àdduna bi yëpp it ñu ànd kaak ñoom vraiment ba lépp luy prévention euh, ñu taxawu ci ñu nit waa kër docteur lépp lu war ci prise en charge mooy ku ko am euh, ñamu mu dëkkal ak ña mu nekkal ak yëpp ñu taxawal ko ba fa dëgg yàlla ñu mën ko euh, dàng ba niñ ñu liñ ciy ragal mooy mu tasaaroo fi yàlla musal ñu si jërëjëf di santaat ñëpp di di gërëm ñëpp tamit yéen waa waaw di lancer nag officiellement daal au nom du médecin chef de région donc les euh, activités du service d'hygiène dans le cadre de la prévention dans le district sanitaire de Touba jërëjëf